présidente comité Miss Sénégal xam ngeen di nag Amina Badiane Miss Sénégal 2020 dafa génn boole ko wax yorin bi nga xam ne moom la yoree comité boobu ak tamit xeetu réseau de prostitution bi nga xam ne moo am ci biir comité bi ci loolu la ñu bëri génn muy célébrité ak askan wi di ñaawlu lool taxawaayu Amina Badiane ci biir comité bi réseaux sociaux yu nag xumboon na lool ndax Amina Badiane lu waay neex rek yàq na ko ko te yemuñu sax ci loolu ndax wax ji su eggee ba fii lépp Amina Badiane la moom ba miss bi njëkkee génn ak yaayam ci saa si moom tamit mu def ab soxti ci sortie boobu nag euh, moo ko gën a dugal ndax dafa mel ni soxna sii mënul communiquer wala sax joxuñu ko ay conseil balaa moo jàkkaarloog journaliste yi wax jamu fa wax keroog googule ñaaw na lool yëkkati na xolu askan wi yépp ba dañu ko doon laaj sax moom xanaa ndax du jigéen wala sax nan la mën a génne ay kàddu yu mel nii kàddu yu ñaawe nii moo tax nag après amatul jàmm gis nañu vidéo de soutien ak vidéo yi nga xam ne ñu bëri ci sénégalais yi def nañu ko di xas ak ngañ kile di njiitu comité bi gis nañu tamit live Instagram yi Amina nag ay mbokkam ñoo njëkk a jug annoncé woon ay plante ngir injure waaye keroog Amina Badiane ci boppam moo porté plainte Mamiko femme ak Kader Gadji mi nga xam ne moo nekk ci série maîtresse d'un homme marié mi nga xam ne dafa defoon ab live bu saf sàpp yekk Amina lu mel ni xamee ak tamit plainte contre X moo tax nag tey jilee jigéen yu bëri joxante woon rendez-vous ca tribunal ba ngir déposer seen ay plainte contre soxna si di Amina Badiane ngir apologie de viol plainte yi nag bari nañu ëpp nañu sax téeméer képp kuy jigéen rek te taxawoon nga fa dugg nga joxe sa plainte même sax euh, ñi nga xam ne ñoo nekk ci région yi te mënuñu woon déplacer ñëw tey fii Ndakaaru soxna yi dañu leen a photocopier plainte yi yónnee leen ko rek ngir ñoom tamit fu mënti nekk rek ñu mën a joxe fa seen plainte ca tribunal ya it tamit xamle nañu ni ñu ngi ci gannaaw Mamiko ak Kader Gadji ci plainte Amina ngir diffamation bi suba nag jeudi 25 novembre ci la waa ONG Jamra it tamit di dugg ci combat bi ndax xamle woon nañu ni alxames incha allah seeni avocat dina porter ji plainte Amina Badiane pour apologie de viol. waaye lii yëpp rafet na dëgg la mais askan wi tamit euh, ñu ngi ñaan Fatima Dione Miss Sénégal 2020 mi nga xam ne moo tax coow yi am mu génn dem porté ji plainte ndax ndibbal tamit daf ci fekk loxoy boroom ñoom Mamiko waa Femme ak Kader ñëpp jël nañu komba bi surtout Mamiko ndax bëgg rekk ku setal deru jigéen bëgg tamit violence bi nga xam ne moom la jigéen yi fii di subir ci réew mi dakk moo tax ñu toog ñu wéet tamit ci bile combat Fatima ci boppam su génnee porté ji plainte mbir mi mën naa sax am yeneen tournure yu bees plainte yi ñu teg nag ci ndoddu Amina Badiane yemul rek ci apologie de viol soxna yi dañuy ñaan yoon ngir ñu dindi licence bi nga xam ne Amina Badiane da ko jëndoon ci loxooy Ambroise Gomis ngir rek dootul mën a organiser li di élection mi Sénégal